firme ba sax mujjee nañ ko renvoyé ci yoon bi maanaam moom heure bi ñu ko convoqué respecté na ñàkk na respecté loi ba heure boobu sax ñëwul et eh puis ça n'étonne pas parce que Ousmane Sonko boobu xam naa moo ko jàngal loolu parce que luy même defoon na ko maanaam ñu convoqué la 10 ngay taxawaalu di tambaambaalu ba heure bu la neexee ngay soog a ñëw di naan da ngay prendre juste avant mu yegg sax d'ailleurs pour une raison très simple mooy maanaam defence bi teewul woon moom déjà nee nañu loolu renvoyé nañ ko donc loolu yëpp soo ko dajalee vraiment day wane sénégalais yi. l'opposition et le pouvoir ne sont-ils pas en train de semer les germes de Sénégal dem vraiment le Sénégal est très mal barré xamuñu loi xamaa nañu loi xamadi nañu xamadi nag pas dans le sens où euh, euh, indiscipline wala dara mais ñàkk xam ñàkk xam weguñu Sénégal weguñu ci Sénégal boo xam ne ñoom nee nañu justice boobu la ñuy basé wu pour mën a yor réew mi loolu vraiment c'est très regrettable et c'est vraiment décevant may wax rek ne pour terminer mhm. politique bi ngeen bëgg politique dafa xewi politique bi ngeen bëgg a politique xewatul léegi politique bi xew mooy politique gu wax dëgg nit ñi di ko xam mais soo demee bay di instrumentaliser loo xam ne xale yu ndaw yi sax xam nañ ne lii instrumentalisation la. waxu kàcc la wax yoo xam ne amul tegulu si dara dara dara dara lu bugg instrumentaliser yaakaar ne nit ñi jànguñu amuñu xam-xam yaakaar ne nit ñi xamuñu lu xew ci réew mi vraiment c'est manquer de respect aux Sénégalais et loolu moo leen dal et vraiment c'est regrettable. Euh, alors Père Gaston euh, bu ñu gisee situation bi ni mu demee yow naka nga koy jàngatee parce que euh, ginnaaw convocation bi am na arrestation ñoom wax nañu ne am na ci ñoo xam ne dañ leen brutaliser ba ci Malick Gakou sax lu jëm ci nee nañu mbaggam daf ci am blessure ba ñëwul tey ci conférence de presse bi situation violence bi euh, ci élection yoo xam ne demaguñu ci ci convocation euh, ban jàngat nga ci am. jërëjëf Fatou Abdou jàngat bi ma ci am kay mooy que ñuy def dafa amul benn sens amul benn sens euh, wax nga ko jël mu ko bëgg a wax léegi sama jeune frère. Mm-hmm. c'est-à-dire que ñu convoqué nit tribunal ci homme politique homme politique bu ñu fi mën a rek nit ñi topp nan la. muy Ablaye Wade muy Macky Sall muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Karim Wade. kon fi convoqué ñu topp la parce que nag seen seen euh, situation moom mel noonu homme politique lañu dañuy politique man toujours damay wax damay faral di wax du ma nëbbatu man Macky Sall la Macky Sall laa gëm mhm. su ma sañoon mu nekk fi baapam jeex mu dem mais itam nag am na yoo xam ne aussi man du ma ko cautionné parce que lii fi xew tey mënoon naa yóbbuwaat ay bakkan mhm. te jaru ko gisuma lu ko fi jar ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ñoo bokk tey juge bi teel na ko renvoyé peut-être que man xaw ma droit mais je pense que affaire bi mu amee coow wala bi Barth nekkee candidat rek mënoon nañu ko renvoyé sax avocat yi mënoon nañu demandé ñu renvoyé ko coow du ci am dara du ci am mais mënuñu et que bon il faut que euh, suñu mbokk yi aussi mbokk ki Sall yi APR aussi il faut que ñu xam ni réew mi ñoom la fi yàlla teg tey am na ñenn ñu fi tegoon démb daf fiy teg ñeneen te suñu doom yi ñooy bëggante sëy ëllëg tey ku mënanti ñëw it du jëlal kenn mais mais est-ce que est-ce que war a doxee. non non non euh, justice xam nga suñu jëlee justice ko teg yoon xam nga réew du jox dëgg ñuy wax ne kon justice bi dañu ko instrumentaliser. non non pardon eggale rek. Mhm. xam nga réew mi il faut ñu mu am masla parce que léeg-léeg justice bëgg def dara sëriñ si dox ci ñu teg justice teg fële topp li sëriñ si wax parce que dañuy dañuy ay mbokk lañu am na loo xam ne su naree indi fitna Abdou Diouf la président Diouf. mu hmm. koy saluer au passage. Hmm. fii la ñu changé code def lépp wàcc ci aéroport bi xëy na su eggoon ca palais ba yàqkat yi yàq xelam ci aéroport bi la ko journaliste yi waxee mu ne leen du ma ci génne benn virgule. te ko looloo ko looloo ko fi jëlee donc suñu bëggee wax ni dégg nga euh, euh, justice justice justice sëriñ si toujours ñu changé. yoonu justice cat yëpp dañ koy ñaan ñaan ci yoon nag parce que ay sénégalais lañu nanu éviter il faut ñu éviter loolu parce que tey Bart mu mënu woo bon jarul woon li lépp Bart gaa koo bàyyi moom rek mu dem man ma xamee Bart koo bàyyi woon moom rek mu dem mais peut-être que aussi ko bàyyi woon ndax kenn jàpp ko de Bart moo def déclaration. waaw non mais àndandoo bi mais solidarité aussi dafa am. Mhm. xëy na ñu ko topp par par solidarité il fa que ñu topp ko. bi ñuy yóbbu Ousmane Sonko dafa demoon topp ji ak ñeneen topp ji bi ñu fi yóbbu Macky Sall ñun ñëpp doon demoon topp ji Ablaye Wade bu ñu koy yóbbu doon yooyu solidarité politicienne la il faut que nit ñi di ko def mais il faut que xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk. bu ñu bëgg a teg rek loi ko sunu ku mu arrangé nga teg loi ku mu arrangé nga teg loi il faut xam ne ñun ñëpp benn la il faut ñu éviter lii dal nañ fi ay nit dee fi tey su fi ay nit dee xoolal li ñu def. bombe lacrymogène lakk pneu yi fi def man damaa mujj tiit sax dama mujj tiit. Eh, ci ngoon si parce que lii mënoon na jur loo xam ni. ci bëccëg bi yëpp mënoon na jur loo xam ni ñun ñëpp du ci arrangé kenn. loolu loolu tegul ko fenn nan delloo ci xel yi. te nit ñi parce que président Macky Sall man xam naa ko bu baax. nit ku sensé la nit ku kii la xam nga léeg-léeg ñu toppoo dégg nga dafa dëgër boobu dafa truc tel tel tel. mais nag xam nga nit il faut nga am ay àndandoo yu la wër ak tel tel tel. mais mais mais mais Gaston est-ce que loolu euh, àndal nga gàkkal leen. moom nga weexal ba tànn non non ñi mu àndal dañoo gàkk mais daf ci am ñu gàkk ñu yàq. man xam naa ci dara parce que sénégalais la ñu fal non non faluñu ko mais da ngay da ngay am considérat il faut que nga am ñoo àndal même suñu la falul man sama li may liggéey am naa ci ay collaborateur